dañu des ci mbir mi ak niñ leen ko waxee woon moom njiitu réew bu Gàmbi Yaya jàmme fës dëggal na li nga xam ne moom mooy xibaar bi ñu doon wax ndax li mu wax euh, ci page Facebook am di ab communiqué ñu jëm ko xaatim ñu jëm koo faram-fàcce ngeen baal ma mu ne nag euh, ñenn ci ay euh, collègue gambien gambien mu ne nag démb daal ci xaaju guddi bi une di du matin jotee ay force loyale ci njiital Lamine Sané nekkoon nag commandant de la garde de l'État te ñu tekki ndombal tànkam ñoom ñoo dugg Gàmbi jaaree Sénégal li ñu daal mooy fuqati nguur gi nga xam ne askan wa ñoom ñoo ko fa teg mu ne nag euh, ay euh, nit lañ yoo xam ne dañoo yoroon ngànnaay euh, daal di nag attaqué maanaam songu pale présidentiel ba di màkkaanam ak it poste militaire bu Danton pont mu ne nag ñi nga xamante ni si ñoom ñooy takk der ya mu fa teg mu leen di gàcce ngalaamaal nee na mbir ma nag antuwut ndax ñoom ñoo taxaw daal di gàntal mbir ma mu ne ñeent sax ci ñi nga xam ne ñoom ñoo amaloon cong yi faat nañu leen ca saasa ñeneen ñeent ñu jàpp leen mu ne shérif ci boppam moom euh, sax daal da jële ay gaañu gaañu yoo xam ne euh, mën naa faatu ci euh, mbir mi li mu wax nag nee na benn doomu Gàmbi dundul li nga xam ne moom mooy complot ndax complot la ko tuddee nee na nag dañoo complot ki nga xamante ni si moom mooy moom mooy njiitu réew bu Gàmbi li mu gis nag moom mooy daal kii di Sané mm, trahison la def maanaam li nga xamante si moom mooy wor moom nag muy dalal xel nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy noonu euh, Gàmbi euh, fii du ñu fi amee ndam du ñu amee ndam ca diwaanu Gàmbi noonu la ko waxee ndax nee na euh, dina dellu si foofee ca réew ma ndax France la nekkoon li mu bëgg nag mooy daal di taxaw daal di ibbi ab enquête enquête bi nga xam ne moom ci boppam Yaya Jammeh moo koy jiite teyit li mu wax mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo amal mbir mu ñaaw moomu lee ndax moom loolu la ko jàppee di ay kàddoom yu ñu jaaraat moom Yaya Jammeh dafa jàpp ne ñi amal mbir mi ay sàmba Gambie jaaree ko Sénégal nee na nag euh, ñeent ca faatu ñeneen ña jàpp nañu leen kenn sax moom euh, nee na nag euh, ki nga xamante ne si moom mooy Chérif jëlee na ci ay gaañu gaañu yoo xam ne mën nañu ko saraxel daal ndax loolu moom mooy kàddu Yaya Jammeh moom Yaya Jammeh nag kàddu yi ñu ngi ko génnee ci page Facebook am di ab communiqué boo xam ne xaatim na ko te it nee na enquête ba ñuy def maanaam gëstu ba moom président bu Gambie moom moo ko nar a jiite te képp wala nga takk ca di nga ne mbir mi ko seqal Yaya Jammeh nga seqal mbir mi loolu di ay kàddoom yu nu mën a taataanee ci page Facebook am jaarale ko ci ab communiqué bu mu xaatim